تركت ما كان لي بالبيع مبتغيا ما علم لي يا بحاجتي لا بكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñoo ngi leen di dellu di leen nuyu di leen masawu di E, leen ndokkeel ci bés bi nga xam ne ñaari at walla lu ko lu ko ëpp defu nañ defuñu ko ñu ngi tàmbale nuyu bi ci kilifa yi nga xam ne ñoo fi nekk muy ñi jiite liggéey bi bala ñuy egsi ci kilifa yi nga xam ne président moo leen yebal ñu tàmbalee ko ci sëriñ fàllu Mbacke mi nga xam ne moo nekk présia te jii dafa lépp lu jëm ci mbirum diine ginnaaw bi ñu nuyoo président Modou Mbow ak Moustapha bi sës ci moom wante ñu nuyu tamit soxna Njéeme Caam mi jiite soxna yi di leen ndokkeel ci seen bés bi di nuyu xale yi di nuyu nag mbooleem gox ñi nga xam ne ñëw nañu te jóge ci yi nga xam ne mooy gox yi gis nañu daayira yépp gis nañu daayira Genoa gis nañu daayira Touba Veneto Novara Treviso Parma ak ak yooyu yëpp gis nañu ak délégation sunu mbokk yi nga xam ne damay wax faral di wax ne damay génnewu sax di wax ay tijaan ak yooyu defe naa bërki démb bi ngeen waxee ñu wax leen ne ñu waxal leen te dama leen ne sax wax tijaan ak murit la sax kooku dafa dafa xewi loolu dafa xewi du lu ñu nit ñu weesu nañu foofu kon yéen it noo bokk ñoo yéen a bokk liggéey bi ngeen teew ci ñu ngi leen di ndokkeel bu baax di leen gërëm nag ci ni ma ko waxee sànq lii ñaari at yi amul ndax dogal bi fi sunu borom dogaloon waaye kooku ci nga xam ne moo dogal dogal bi muy yàlla jógu fi te du fi jóg buñ jàpp ne mukk ne li am ci ñaari at yi lu bees la ba àddina sosoo ba léegi noonu la doon demee wax xam ngeen ko ci aadama ne ko sunu borom génnee fa mu nekk muy àjjana wax naa sax ne bu ñu ko jàngatee am na sax lu ñu ci def xëy na jërul wax fii waaye dafa mel ne aadama euh, lu nu dal mënu ko teg ndax yàlla daf ko wax ne ko wala qad ahayna ila aadama min qablu fa nasiya walam najloo azman pacte pacte bi ma def aadama aadama amul détermination amul jom kon yàlla boote loolu dafa topp doomu aadama ndax nekk àjjana yàlla dara mànkiwul mu jox la lépp benn benn rekk benn jumtukaay képp bu fa nekk mu la ne bu ko laal bu ko jege nga jege ko te dara mànkiwu la mais kooku ngor ngor du ko def kon lu nu dal mu ngi déparé foofu li nu yi nga xam ne lépp lu nu yàlla won buñ ca jógee bu ne won buñ ca jógee mel ne fàtte nan ko tam di ko wax ci alxuraan dafa may nit dafa may ñaan su ma ñaanee su jàqee ñaan ma su ma ko mayee su ma pee fàtte waaye buñ jàngee dara danañ xam ne lii fi am ma su fi jóg mbas yu ne am na ci àdduna yàlla yabal na ay mbën tuufaan xam ngeen ko ku no wax demoon na ba kenn desatul ci àdduna lu ne lu ne yàlla wane na ko ci ay ay ay yu doy waar yoo xam ne ay deret way dam wal xumal wa dafaaje wa dem loolu lépp ay ay mbir la yoo xam ne sunu borom wane na ko ci doomu aadama fi ne nii ci àdduna bi rek sax it lu ne gis nañ ko fi gis nañ ko fi yiw bi am waaye taxul doomu aadama lii amet bët bërki démb ñu jóge ci ndagam xëy na yàlla na fi jóg waaye loolu lañ yaakaar waaye lii ci topp tamit di ko junj léegi bu ñu jàpp ne lu tuuti la ndax guerre bu ñaareel bi ak ak ba ko jiitu li ci ëpp ci li ko sos lu tuuti la woon te defe naa ne bu bu ñetteel bi bu dee am koy bu jàpp ne bu yàlla moo xam waaye àdduna sax mën na ci jeex ndax tàmbali nit du am lu mu lekk la mu doon am duutu ko am te demagul fenn mu wóor ne su yàggee nit dana dem ba du am lu mu bëgg lekk sax duutu ko am wala moo koy defal boppam mais kooku kon ne xam na ne kon fitna la te fitna dañ na du yem ci bopp borom nañ koy bàyyi xel bu baax kon nit ñi nañu jàpp ne nu fii ngeen nekk nag ñu ngi ndokkeel nag waa jamiya bi ndax wax nañ ne ay juróom-ñetti junniy kaamil la ñuy jàng ak ay xasaayid mais loolu mën na yoru àddina bi mën na koo yor te it bu leen xeeb seen bopp ci li ko téye ndax yàlla yàlla la rek wax naa leen na Nations Unies du caaxaan salle ji gën a mag ci Nations Unies nga xam ne assemblée générale kenn mosu fa wax lu dul lu jëm ci àdduna te ay kilifaa ko fay wax suñ demee ba jox na ko lu fi dafa wax diine te amuñu pétrole amuñu let amuñu mais kooku la ka ko def xam na ne lu nekk ci nit ki moom moo tax mu def ko ci kon nii nu def di xalaat di jàng ay kaamil alxuraan nga xam ne alxuraan lépp a ngi ci biir lépp yàlla amu ko ci biir mi ngi ci chifaan ma sax wax na ko ci lu nekk ngi ci biir kon yéen ngeen di ko def di jàng ay ay ay ay ay xasaayid yoo xam ne sëñ Touba daf ci tagg yonent bi daf ci ñaan lëm war a def yëpp def ak ñeneen ñi nga xam ne mooy ay kii mais kooku jàpp leen ne waaye nag lu mu mën di doon bu ay musiba dee dal feneen it yàlla moom la mu wax wax na ko bu nag du yem ci bopp borom kon loolu bu leen ci jóg waaye ñu bàyyi xel nag ne yii jamono ji jafe-jafe jii di am nan bàyyi xel ci képp koo xam ne danga daan dépenser. junni fexeel ba wàññi ko ndax xamuñu fu mu yem sunu réew it nañu jéem di liggéey moom mbay mi defe naa ne monsieur le euh, danaa ci dellusi euh, le le euh, ambassadeur Pape Abdoulaye Seck du nekk nit koo xam ne nit ku xam adduna nit ku xam liggéey la boobu te mbay rek moo mën a def moo mën a def maa ngi koy tooñ léegi naa ko ah yow de président jox na li de waaye yow de ay scientifique def naa ne benn minute képp bu ñu ko toogee te nekkuñu di la xalaat lu jëmale àdduna kooku defe naa ne day mel ne lu jëm ci loolu waaye fii nga nekk yàlla na la fi yàlla sàmm mu mel ne kon li mu wax ci ñu nit damay wax ne nit nit bu fekkente ne boo gisee ñuy wax ne ñun dañuy informer du ñu du ñu publicité bari na loo xam ne boo fa ñëwee ba gis ko yow nga xamal ko sa bopp nga mu nekk sa bopp dafa gën a wóoru nga wax ko ci kaw rek nit dégg ko. Eh, nit ki nga xam ne dafa xam damay wax ne nit bu fekkente ne da nga nekk nit boo ku la koo xam ne bu la waxee wax bu niru lu neex te nga xam xool ko bu baax xàmmee ko da war a tiit da ngaa war a laxasaayu mooy du la jay te lam lay wax bu def ne daf lay daf lay daf lay bëgg loolu neex mais dafa bëgg li nga nekkoon nga nekk ci moo tax li ñu li mu wax ci liggéey bi xam na xam na bu baax affaire njàng kon loolu tamit nga xam ne ñun tamit na ngeen ci jàpp nag parce que njàng tamit ah, dafa nekk loo xam ne du jeex loolu tamit ñu ngi ci ñu ngi leen ko li ci des mooy kon na ngeen fexe ba gën di économiser wàññi lu ngeen am ko néew ngeen di ko bàyyi xel lépp lu ngeen mën a fexe ba di ko def ndax yàlla kat ah, maye na nit muy xalaat lu egseegul ray bu moom moom rek moo ko xam waaye may na nag nit mu di ci xalaat bu ko defee dana tax fii ñu toll ci jamono ji xamuñu fu muy yem xamuñu nu muy demee ak fu mu mën a yem bu yemoon tey sax jafe na ba noppi ndax am na loo xam ne pour ñu dabaatal ko foog mu nekkaat ab diir bu ko defee loolu lépp daf ci bokk bopp loolu weesoo nag kon monsieur le ministre ñu ngi lay sant di gërëm bu jot lu ñu ba tey santu président Macky Sall moom i tamit ndax ni ngeen ko waxee fii ba mu dooree léegi sëñ Moutala nekk fii at bu jot dana yónne ay kilifa ay ministre muy fii muy Amérique ñu ànd ak ñun ànd boo xam ne ànd parce que xaaru ci ñu gërëm ko ci xaaru ci tamit ñu ñu sant ko ci nuy tamit yàlla dimbale nañu ba lépp lu ñuy wax rek lu nekk ci ñun la du ñu dugg ci lu ñu xam du ñu jay kon lu mu ci def ci ñun dafa fekk mu def ko loolu tamit euh, ñi ngi ko ci nga santal ñu ko bu baax te xam ne loolu ñun ci doxin boobu rek lañu lañu lañu la ñu fas dox di la sant di la ñaan nga santal ñu tamit seen conseil bi fi nekk mooy Lamine wax ngeen ko euh, jàmbaar la waxoon nañ ko démb ambassadeur bi fi nekk di di ko moom itam euh, li ko li ko indi amba euh, diplomatie la waaye nit la ko xam ne mën nañoo jariñoo ci moom ci lu bari loolu tamit nga waxal ñu président nañu lu bari ci wàllu fi àdduna bi toll nañ ñu nañ ndax ñun am nañu ay ay faculté yoo xam ne ay mbay la ni ko waxee am nañ ko baa Bambey am nañ ko Ndar wante bëgg nañu tamit ñu gën a gën a gën a fexe ba gën ñoo may tuuti ay ay ay ndax xale yi génn am seen licence jàmbaar lañu am nañu amu ci kenn koo xam ne génn nga ba wax ñu ne ñu da nga bëggoon nga wutal ñu liggéey amu ci ku ci génn da ngay jéem a fexeel defal sa bopp te ñëpp ñi ci génn ñëpp te yàlla def ñu génn entreprise yu bari dañ leen a jël waaye dañ ñuy ndokkeel sax ci façon nit bi ñu dal mu mel ne kon defar nit ki noonu rek lañ ko mën defee kon nag li ci des mooy yéen ñi nekk fii ngeen nekk ci jamono ju jafe bés bi wax dëgg yàlla yërëmoon ñeewantu woon nañ lool waxoon naa ne teñ ko bàyyi ndax at yi ñu génn liggéey amu fi jafe na ñi ngeen dëkkaloon sax dem nañ ba sonn ci gën leen a sonn kon ku ne xam ne nekkuwu leen fi ak kon boo gisee ñu nangu ñëw dañoo xam ne li ngeen pas-pas bi ngeen am ak gëm-gëm gi ngeen am nit nga koy def fa muy xool kooku booy ba nga jëm ko fa fekk rek ndax fa mu jëm xam na ko loolu moo tax waaye kon dañu naan lii lii ñu def nag at bu jot ñu di ko def ngeen xam ne ndam la ci lislaam ndam la ci yéen ndax fii kat ab dëkk la boo xam ne dëkku jàmbar la bu ngeen ràññ ko fi bokk leen ak ñoom ay wax bokk leen ay melo bekku leen aw aw aw ak diine su ngeen fi nekkee ba fexe ñu respecté leen kooku si garder seen valeurs yi moo tax ngeen def am na noo xam ne bu ne demee woon kenn du leen xool kenn du leen xool loolu nag ngeen am muy éducation boobu wala ay valeur yi nga xam mooy valeur diine mooy kenn ku ci nekk bu gisee sa morom day defee ne maa nga ca moom ba nun yi sax damay wax ne li tax may wax toujours baatut sëriñ du du du pouvoir mais responsabilité la pouvoir boo ko deccee xool léeg-léeg sëriñ da koy defee day defee ne pouvoir la ndax nit toog sa moromu gor mën naa am lépp moo la ko ëppale mën naa am moo la gën a jege sax yàlla nangoo toog ci suuf nangoo sukk ci sa kanam nangu laa woon lu ne nga xam ne la muy xalaat ci biiram même ak lu mu mën a doon mënoo koo xam ndax lam la woon moom nga gis ku mel noonu responsable da ngay boobu nanguwut a nekk ab responsable da nga am problème ndax boo ko bëggee jàppe nguur defe na loola loo moom la wala lu mu la jagle la wala lu ne ceew la mais kooku dangay def problème da ngay indi erreur boo xam ne mën na indi jafe-jafe loolu moo taxul sëñ Touba am ay école am amoon na ay école ndax ku ne xam na ni bi fi Maamoor Anta Sali joxe nekke ci mujj gi daf ko dénkoon daaraam mais bi sëñ bi demee bi Maamoor Anta Sali demee bàyyi ko fi ay ay 1882 81 82 83 mais dafa jóg carrière système bu boppam moo tax léeg-léeg nga dégg ci murid yi ñu naa sëñ bi nee na daf ne woon bi Maamoor Anta Sali demee ku fi jàng indi woon demal xaw ma ku fi mais loolu logique ndax lu tax mu def ko ba pare lim bind lépp ginnaaw boobu la ko bind. kuy bind ci xam-xam mais kooku aayewul xam-xam mais dafa créer ab système am système am boobu mu créé mooy ñi nga xam ne dañ leen war a am éducation dañ leen a yar créer ay daara sëñ Daam Abdourahmane nag fii mooy pépinière bi sëñ Mbàkke Bousso nga fële maam Thierno nga fële maam Mor Diarra nga fële euh, loolu ay ay ay ay ay Cheikh Ibrahima la nga ne ci wàllu éducation koo xam ne mënatul jàng mais mën nga ko defar ba boo ko gisee mooy ëpp gën a am sax la nga soxla ci ki jàng mais loolu ay école la système boobu la sëñ bi def yooyu nag dafa mel ne bin ci jël ñun mooy système éducation bi nit koo xam ne bu gëm lañ teg ci kanam te gëm boobu nag ma di leen ci xamal ne du lu simple wax naa leen ne yàlla ci boppam ñaax na ci ku nekk waaw ñaax na ci ku nekk ndax dafa nekk loo xam nee na moo koy joxe waaye bala mu la ko joxe da fekk nga jaar ca yoon kon bu nu yàlla dimbalee nu am ku nu wammat muy sëñ Touba ak mag ñi ci nekkoon fexe ba nu gëm te xeexuloo ndax yonent bi sallallahu lim fi doon xeex lépp lim fi doon nekk lépp dafa bëggoon nit ñi teg leen ci wàllu gëm mosul xeex pour tooñ wala violence wala yëg amu ci intérêt wante nun bu nu yàlla dimbalee ñoo ñëw gis gëstu yonent bi ba ba ko fekk si nu fexe ba nit ki gëm yàlla bu xasee gëm yàlla la ca des lépp ay ay orientation rek lay doon gëm mooy jafe nit ku loo ko fexe ba lijjantil la ko parce que yonent yi fi ñëw yëpp seen échec mooy gëm ñàkk gëm lañu defoon wax naa leen ne nooxin am na junni at yu manqué juróom fukk nee nañ sax juróom fukk yi ci la bokk mais junni at nga am ko di ko woo nit mënu leen convaincre ba egg ci yàlla di leen di ko wax ne ko woo naa leen guddi ak bëccëg mën a lu ma neen dara damay wax ne loolu échec mënu ko wees ak yeneen yonent yoo xam ne kenn ku ci nekk la nga doon woote da ngaa mer wala nga saalit wala nga dugg ci leneen loolu kon dafa mel ne yàlla bàyyiwul ku pourtant ku ci nekk yàlla jox na la ci ngànnaay loo xam ne loo wax boo ci taxawul yàlla mën na la ko defal mais yàlla dafa bëgg nit am liberté ci moom am liberté ci ngëmam ki la ko lijjanti nag ba nga mën a gëm dara jaare ko ci moom mais kooku mënuloo ko moo tax dañ ko war a téye bu baax loolu moo indi seen doxin bii ngeen di dox am na loo xam ne boo ko gisee ci nit moo tax bu nu teeyul ci ñun ñi ngeen di xool xëy na man sax waxuma damaa wax rek xëy na ñeneen ñi waaye ñi ngeen di xool ci lu baax ngeen di leen xool ci sëñ tubaab moomu am nañu responsabilité boo xam ne bu ñu deful ndànk mën na am jafe-jafe moo tax da ngeen dem may wax naan sëñ Mountakha dama ko ne sëñ bi sa jafe-jafe mooy yow da nga dul nangoo xool bu nit solee bu mu weex bu mu ñuul tàmbalee ko ci baat bi ba ci baaraam yi doo nangoo xool mu ba jëlee as kaala wala as mbaxana teg su weex teg ca kaw bopp ba yow doon nangoo xool li ci des lu ñuul li lépp bopp ba rek ngay xool mbopp sa ngay bopp ba ngay xool ma ne ko kon danga nga téen ba sonn ma ne ko li gën a jafe nag fii ñu toll la weexoon sax mooy kaala sax sax léegi dafa amut lépp dafa ñuul léegi dangay mujj di dumóoyu ak di gëmmu moo tax da ngay sonn loolu moo tax ñu wax ne nit ñi nañuy dimbale kilifa ndax koo xam ne bëggul bëggul gis ci nit lu dul noonu bëggul gis ci nit lu loolu loolu lépp nag mooy problème bi am moo moo problème mu diine la mooy problème diine mooy nafeq nafeq mooy di wane loo xam ne nekkul ci yow moo tax may wax ne léeg-léeg sax da ngay gis façon nit boo xam ne dafa mel ne dañuy dañu dañuy dañuy dañuy def cinéma wala dañuy def ay théâtre parce que diine du lu ñuy fooyee gëm diine conviction la mais du du calcul soo ko defee ci diine rek su ma defee lii am lii un plus un égal égal deux deux plus plus deux égal quatre kooku calcul la diine amul loolu diine conviction la gëm-gëm la da nga naan fii laa jëm yàlla laa koy defal ba ma defee pare naa yàlla sax sequñu sax ak pay daf la ko wax rek mais yow bu ci sax xaar loolu loolu moo tax sëñ Tuubaa ñi ànd ak moom mooy yéen ñii amoo sax ab dépense boo def sa kër amoo loo loo loo sa kër la fa nekk doyul nga àttana bàyyi sa bés boo xam ne da nga ko waroon liggéey am na ci ñoo xam ne tey dañu war a liggéey am na ci ñoo xam ne seen kër ci boppam dépense amu fa nga àttana jël lépp sa ñaari dërëm bu ñu loo tey dama dafa mas a toog ci Amérique ma gis ku yor as mbuus ku mu taxaw nga génn sa yëf def ca nga xam ne kooku préparé wul woon loolu ma ne ko day na nga def attention ni ma ko gisee day dafa mel ne da ngaa jël am raxasu ku ne nga dékk ko mu raxasu fexeel nag ba raxasu moomu bu ko naan wala nga di ko xëppoo loolu dafa mat bàyyi xel murit boo ko laajee mu gaaw jox la du calculer mais lu dangereux nga loolu moo tax fañ koy segge nag kooku kenn du ci dugg kooku ña koy segg xam nañ ko waaye sama maas ji nga xam ne mënuñu segg mënuñu sax xamuñu sax amuñu sax tame mënuñu segg dara dañuy jaxase rek jël seen radu rek ñu gis te gars yi boo leen ne ñaari dem tey bu ma waxoon ne ku ma dama jox ñaari dem ñëpp daal ma ko jox fi sax wallaay mais du ma ko def du ma ko def parce que xam naa am na lu ma xam quand bu ko defee yooyu nañ koy bàyyi xel li ngeen di def nag yéen amu leen perte parce que nit koo xam ne lépp lu muy def yàlla la ko tax mu di ko def bu leen ku leen mën na defe ne da leen di naxit bu leen neexee na ko neex na ko na leen nax mais yéen kenn mënu leen a nax parce que kii def te xam li muy def léegi kon mënu ko nax kon loolu moo tax boo gisee motu laa di wax loolu jumtuwaay yi nu am pour liggéey la parce que jàng dafa mett suñ leen waxoon li ñuy fay par weer mais day niru sal wala day niru leneen mais lan moo koy def parce que damay wax ne ñun du ñu def blanchiment le ministre maa ngi lay wax na ñun bokkuñu ci ñi def blanchiment yow état laay waxal na <laughs> waaw xam nga liñ ci jublu du du publicité du dara mais dañu wax ne yoon wi nañu dimbali sëñ Touba. dimbale ko ci di bàyyi ñaari dërëm yii ak ñii nga xam ne dañ ko sellal ñu di leen dimbale wante lu ne nga calculer ko fu ne nga jaar fa lu ne nga def ko ne loolu mënul sottil lootal dara kon li am solo mooy li ngeen di am seen ñaari dërëm yii lu muy tuuti tuuti tuuti mu lew leen doom set ngeen àttan bu ngeen ameen benn benn benn benn euro wala juróomi oro nit taxaw ni leen yàlla la ngeen attan ko génne ko sànni ko ko dem dox wala yéen a xam mais kooku valeur yooyu bu leen lu mu mett lu mu niru niru niru lu metti na ngeen ko téye bu baax parce que du lu yomb nit mënu ko def te gëmul yàlla am na ñoo xam ne tey denc nañu ay milliards te boo bëggoon boo leen woon tey damaa bëgg junni képp buñ ko génnee ci seen poste day mel ak adduna ji tukki lay doon kon yéen su ngeen amul dara amul leen lu ngeen dépensé te ku leen laaj fu ngeen ko joxe la ngeen naroon joxe dépense ngeen def ko ngir yàlla kooku moo garantir kooku moo moo confirmer seenu ngëm confirmation boobu na ci ngëm nag na ngeen ko téye bu baax bu ko dara yàq kon ñu ngi gërëm ñëpp di gërëm di leen nuyu ci suñu tur mbokk yi fi ñëw mbokk yi fi nekk yëpp di ay rak di ay bokk ñoom ñëpp ci suñu tur ñu ngi leen ci ñu ngi leen ci nuyu di leen gërëm te xam ne xam nañ coono bi xam nañ sa bàyyi coono bi dem ginnaaw yéen seen bopp ngeen koy defal kooku amul amul solo sal sa su fekkoonte ne tey wóor nañu ne ñoom ñoo tax ngeen ñëw du ñëw boo gisee biñ ñu waxee ne ñoom ma ne leen teñ maa dimbali ginnaaw jamono ji dafa naqari nañ ko bàyyi ñu ne ma bi ma demee ba ci biir nag ba toog sama beru ma ne mais est-ce que man man maa tax sax nit ñi di dajaloo waaw kon man ginnaaw taxuma mais teñ teñ bëgg ñu dem wettali leen mel nañu dem loolu moo tax li tax it barab yi bari ñu doon fa dem te demuñu ko li tax loolu tamit am na lu ma ci mën a wax mais am na loo xam ne tamit dafa xaw a jafe mooy xam ngeen ne déplacement yi du ñemewu maa wax ne damaa sonn kooku ñeme ma ko parce que sama conscience la xam naa li may wax ndax mag laa mais maa ngi dox comme tout le monde ñëpp comme xëy na ndax bu ma tëddoon ne du ñëw mën naa wala mën naa ndax daaw sax am na at bu ma fi tàggee sax fa ne dama wàccub liggéey bay wax sax ne euh, jàmbaari lislaam man lan laa defal lislaam kooku moom pare woon mais loolu yëpp li mu a wax mooy kon ñemewu ma toog ne du ma ñëw li ma raw ragal rek mooy coono bi ngeen di jànkonteel ak dëkk yi ñu doon dem bari na amuñu ndax ku ne xam na ni man bi ñu fi ñëwee dañoo wut oto ndax bañ leen a sonal di daw ay kilomètres mais loolu bu wóor na ne nit ne bu fekkoonte ne amul ndimbalul yàlla ne duñ ko def wante nag gis nañu ne barab yu bari bu ñu fay dem dëkk bu ne bu ñu fay dem bu fekkonte ne dañ koy organiser ba ñaari nit ak ñetti nit waaye wax dëgg yàlla it waxuma ñun dàquñu kenn de waaye ñanuy fekki nañ leen bàyyi xel buñ ne ñaari nit dem juróomi nit. ñaar fukki nit wala fanweer nit dem sëpp ab dëkk loola ñëpp ñëw kenn ku ne agsi ne la wutal ma fu may dal wutal ma lu may lekk boo ko waxee boo yeexee sax mu xas la ca loolu la ñu gën a daw loolu dañ ko ragal te kenn du wax ne kooka la dañ naan man maa leen fi indi wax dëgg yàlla may nag foog mu jéem a dégager sama responsabilité loolu da cee bokk kon loolu bokk na ci secret bi nga xam ne tax na ma bëgg ñu wàññi déplacement yi ma bëgg ñu wàññi dëkk yi ngeen seet nu ngeen koy ba fu nekk nuñ ko war a defee ñu di ko defe noo xam ne kenn du ci am jafe-jafe loolu rek la loo rek loolu la lool lool lool rek la waaye ba ñu ñu am fu ñuy dem wala fu ñu tànn ñaaree bi tamit xaalis yëkkatiwuñu wallahi lancim yëkkatiwuñu te wallahi bu ñu doon yëkkati du ñëw ñu ngi def suñuy pexe bopp yoo xam ne mën nañu am li ñu bëgg waxuma ko pour tiitaru ñun ñu tiitaru parce que tiitaru gone yi sax defatuñ ko waxuma laa mag mais dañuy wax li am li ma bëgg a wax rek mooy wane ne li nu tax a ñëw ci yéen yàlla seere na ne buñ dul woon xam li ngeen pas-pas bi ak jàpp ne ñëw gi am na dara lu mën indi duñ ko def loolu nag ngeen xam kon ko téye ko bu baax téye xam ne yéen a fi nekkal sëñ Touba ñun liñ ci def sëñ Moutala doomi sëñ Touba la waa kër sëñ Touba yëpp sëñ Touba lañu kon ñun nag noo ngi nii rek xaw ma fan la ñuy qualifié ñoo xam yéen a xam en bu leen ñu fexe ba dugal ñu ci ci ci ci rang boobu moom. bu man li ci des mooy ndax moo tax lu ñuy mën a def dañ koy def ànd ko ak yéen bu ñu ñëwee ñu ànd ak yéen ci ànd ak nit ak nit waaw du ñu ay ànd ak nit ki xar baax ay karaama parce que loolu yëpp dafa xajul ci ñun te daf ñu sonal rek bu ko defee nag loolu dañoo bëgg ngeen xam ne kon loolu moo ñu indi wàññi gi ñu wàññi barab yi ñu doon tamit yërëm leen ak jàpp ne bu doon nunu kese ñu wàcc fenn bu ngeen du daxalee ci mbaar sax ñu def ko waaye da ngay ànd ak nit yow bu ñu la yóbbuwoon ci mbaar nga dal fa mais moom mu ñëw ne nañ ma yóbbu ci hôtel loo ci man te doo ko yëg bu waxee mu ne la sëñ bee ma wax ne nañu wax te sëñ ban sëñ yooyu yëpp dafa nekk loo xam ne dafay ay gàllankoor yoo xam ne loolu tax na ñu bëgg ñu wàññi ñu wàññi li nga xam ne mooy mooy mooy barab yi ngeen di ànd xam ne li nu yëkkati yéen fu ngeen mën a nekk ak li mu mën a doon rek li leen tax a jóg mooy yàlla ak yonent bi ak sëñ kon ñu gërëm ñëpp ngeen gën a nekk benn sun réew mi itam nañ nekk benn nañ fexe ba nekk ci jàmm jàmm mooy doxal adduna nit mënul dugg ci ay wax ay wax lu ne nga wax ko lu ne nga dugg ci mënul nekk ba pare di am di développé nanu nanu ndax fi mu ne dëkki tubaab yi ñoo nu ëpp ay problème ci problème bu nekk waaye lu ñuy def dañ ko régler ci seen biir ba jàmm am ca kenn ku ne am sa nekk sa responsable waaye teel teel wax xërëm xërëm ku ne wax sa moroom ni nga ko waxee léegi ci réseaux sociaux yi wax sa morom lu ñaaw balaa sa sedd da ngaa toroxal sa morom loolu jërë loolu aw ay amul njëriñ ay bu ko nit woote nañu fexe ba di def jàmm kon ñu ngi nuyu ñëpp di nuyu kilifa yi fi nekk eh, ñi nga xam ne ñoo ñoo fi nekk ci kër yi yi nga xam ne mooy kër këri diine yëpp ñu ngi leen di sant bu baax di fi ñëw ñi nga xam ne ay parti politique la ñuy dem ñun problème mu ñi ngeen def nag la ndax ñëpp a ngi fi man dama naan politiciens yi man comprendre lu mu leen ndax mën nañoo xeexante fii xëccante fii xeex bu ñu génne nekk benn moo tax man seen mbir wax dëgg yàlla nag ma baal waaye léeg-léeg du ma ci du ma ci du ma ci xóot waaw ndaxte tey jikko bu rafet la damay wax ne est-ce que loolu sëriñ yi sax jikko woon nañ noonu sëriñ bu mer nag moroom jëm lu bokk ci moom sax dootu ko bëgg a gis waaw bari na ci bëgg du ñëpp nag mais politicien mën na poñeenteeg moom ne xeexanteeg moom léegi ci ci mbedd mi boo ca duggee sax yow te bokkoo ca ba la neexee kenn juum dóor la korpañ boo waxee mu ne kee laa doon dóor bu génnee mu ne waa ndax lu mu ci yoon ci yoonam kon jikko la ju baax yoo xam ne ànd di su ngeen dee wut dara ngeen nekk ca su ngeen ci defee du ngeen ay ennemis may ay ay ay adversaire du dara mel na ngeen nekk ci jàmm bu kenn dugg ci xeex bu kenn dugg ci ay détay yooyu détail baaxul nañuy xool l'essentiel waaw détail yu bari da lay jaxase rek ba dootoo xamal sax fa nga jëm loolu moo tax ñu di leen ñaanal yàlla yàlla na yàlla de ci suñu réew jàmm na ndaw yi nañ góor góorlu jàng maa ngi lay wax monsieur ministre tamit jàng mi ni nga wax sëñ Fallou fii bëgg nañ fi ay jàngalekat ñi fi nekk di jàngale dañu fi lañ nekk di liggéey bëgg di liggéey seen doole ba noppi wëlbatiku di jàngale nga xam ne semaine bu nekk ñu jël ca ñaari fan mu metti ci ñoom loolu wax naa ko président wax naa ko ambassadeur bu Italie bi waxoon naa ko bu Espagne bi wax naa ko États-Unis d'Amérique ndax bëgg ñu di leen may ay séjour jàngalekat bu ñu formé mu ñëw ci da ci kër yi bu ko defee di jàngal xale yi teg leen ci yoon nanga ko àggale président pour mu gën ñu ci gën ñu ci gën ci jàppale kon euh, bu fekkee fàtte nañ kon ñi fi nekk ñëpp def naa dañ ne Seynabou bu mi ngi fi euh, euh, ak Maam Jaara Faam ak Ibou nduur waaw ak ak ma ak ma demb Dramé yéen ñëpp ngeen nekk benn yëf yi nañ nekk jàmm nañ fu jàmm loolu moo am solo kon ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla yàlla yàlla def jàmm ci àdduna bi def ko ci réew lii nekk di ay guerre yàlla yamale ko fi ku xam day xam ne mën naa indi jafe-jafe te yàlla na ko fi yàlla yamale def fi jàmm waaye nun góorgóorlu ni ngeen nekk nag jàmmu leen yàlla rek te nekk ci lu baax lu baax moom akuk njub ndax bari na yu am fi ne lu bon yi rek am ay ñaari tur yi ay rey nit mais loolu moo indi problème bi naka jekk la ñi ko daan def ci jamono yonent yi yàlla dafa daan wàcce ay musiba yu dul jeex yooyu yëpp ñu ko buñ ko fekkee mi ngi ci mu ngi ci àdduna bi lii rek lay dem mais problème bi nag mooy ña ca doonul dara bu fitna ji ñëwee da leen di yóbbaale loolu nañ ko bàyyi xel kon lépp lu nit di wax ci lu bon di ko wax wala muy ñaan mu mu mu bañ a am buñ ko ca wax nañ jàpp ne luy lor doomu aadama rek yàlla terewul dara lépp loxo xam luy doomu aadama moo ko digle kon nañu gën a góorgóorlu ñoo ngi gërëm gërëm ñëpp di leen di leen sant asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf Mbacke fu waay nekk na tàllal loxo sëriñ bi ñaanal leen suñu pare incha allah rabbi nu ziyaare dañuy ziyaar nag. waaw dañuy ziyaare dañuy toog rek Mbàkke dañuy romb rek jàll joxe seen addiya jàll incha allah. kon fu ay toll na talal loxoom. fii la ñuy duggee nii la ñuy duggee rek ja génn. laajoo ko de Mbàkke laajoo ko de kon fu ay toll na talal loxoom tey wax amin amin amin yàlla la fi yàlla yàggal tamay la wér. amiin Mbakke amiin yàlla la Sëriñ Tuubaa sàmmal boppam amiin amiin amiin amiin ya rabbi amiin amiin